salaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV di leen nuyu te di leen jaajëfal bu baax dem contentement ak mbégte yi janoo génn chaque jour ndogu ak nee naa leen comme ni koy defee moomoo maa ne la Ndeye Mbacke Diop Mansour Fall du mën a ñàkk dañuy dem ci quartier bu ne fekk fa champion bi daal di toog waxtaan moom ci lépp lu soxal làmb tey nag ki woote champion la ndaanaan la xale bi toj arène nationale daal toj adressé ngor toj fee nga xam te mooy terrain gaal gi <laughs> de Malika fils de Malika di général Malika nee na na waaw Malika dañ kaa yónnee Mansour yàqamti ko kon dañ koy daal nuyu rek daal di ñëw sóob ak moom ci waxtaan bi général maa ngi lay nuyu. waaw man de maa ngi lay fay di la siyaar. ci lan nga nekk. di jox sa waa ci waay naan auzu bilaahi bismilaahi na wala yàlla naan jërëjëf borom Touba jërëjëf Serigne Touba ginnaaw bañ sant yàlla julli ci Yonent bi di nuyu waa Malika yëmbal benn barak waa Kër Massar waa Boune waa Alba Ñaax waa Montagne waa Mbabas di nuyu sumay doxandoo di nuyu suma mbokk mbër yi fi ñëw di nuyu suma xarit yëpp di baalu ñëpp àq tey baal ñëpp àq waaw nga woote fi ndogu mag ban initiative nga am lan moo la may xel boobu nga woote ndogu mag pour mën a partager li nga yor ak sa mbokk yi. waa lii de moom maanaam du gulet ñun chaque année dañuy def fii nga ñu fekk nii fii lañ daan ñëw def ku nekk indi téeméer kii indi ñaar fukk kii indi affaire ñu teg cin bi benn cin bu ndaw lañ fi daan teg defar café bu ngoon jotee ñu jënd suñuy 5 kilos mburu partagé loolu di dox ba tey nag xam nga chaque année ñu koy def ñu ne pourquoi pas ñu koy gën a partagé bi ci gis seen bopp ba tey ñu ne tey dañuy woo suñu mbokk taalibe yëpp woo mbokk Baay Faal lépp ñu ñëw def ndogu comme li ñu daan def démb la bërgi dem sama benn xarit daf maa woo am ay image yu mu gis Maroc la nekk waa naan ma booy da ngeen di defar ndog yi ma ne ko waaw mu ne ma fan la mbaa cosaan la ma ne ko cosaan la fii la tuddee cosaan li tax mu tuddee ko cosaan nag ba ñuy doon ay tout tànk lañ ko yàgg a def te ba léegi dañ koy def te dañuy ñaan yàlla suñu borom diñ kàttanal chaque jour ñu koy def mu ngi noonu ah, loolu nuyoo la woon rek général Malika teg na seen baaraam ñu daan ndogu tudd ñëw xuus ak champion bi à tout à l'heure <coughs> am na ñoo xam ne boo leen gisee si bisu général Malika du doon lu bett kenn ah ku ci mel ni armée bu benn brak soo gisee général la boo tourné armée ngay gis champion dama la nuyu te la ñaanal jàmm ci loo nekk. waa ñu ngi lay fay di la ñaanal jàmm yow tamit ak xéwal ak sutura bu sax ci baat Seydina Mohamed. noo gisee bis bi général Malika daal di woote ndogu noo ko gisee. waa gis nga lii moom yàgg na koo def moom vraiment chaque année yaakaar naa lii annuel la chaque année fii lay sampu joxe ay ndogu ñu koy ñaanal yàlla lépp lu mu mën ren rek dën sa mu mën lu ko raw ci baat Seydina Mouhamed. salaamaaleykum salaam mu ngi noonu ah. armé la sama doomu ndey la maa koy nuyu ah. maa ngi di leen wàccilu di leen ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla jàppale ci barka yonent bi barka Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wa salaam seen liggéeyu ndey seen barke baay yàlla mi fay yàlla ma leen yàlla fayal dama feebar sax waaye général bu wootee dinaa jóg ndax mooy sama doom mooy sama lépp mooy sama doom mooy sama lépp di samam caat ma koy ñaanal yàlla lu mu yóotu yàlla na ko yàlla jotaleel lu mu bëgg yàlla ko yàlla may liggéeyu ndeyam barke baayam baax na bëgg na ma buy bëre digal gu ma digal mu def bu nekkee dara lu muy def dina ñëw ba ci man wax man dama koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla lafal cat ak mbooloo mu jullit yéen itam yàlla yàlla jàppale li ngeen sonn yal na leen ko seenu njaboot fay ci barka yonent bi jërëjëf moom fu mu nekk rek maa nga fi ci biir bu soobee yàlla. jërëjëf yaay booy bu nga noonu ah yaay général moo ko wax. noonu nag ba léegi ah ndogu général Malika lañ nekk taxaw fi nga xamante ni mooy xaritam lañ mën ko wax parce que soo ba léegi Malick nga sonn ci bis bi ci maa ngi fi rek maa ngi nii rek di kuul di sant yàlla di am jàmm taw tawféex bu baax waa général suñu wóolale la suñu xarit la sunu doomu ndey la danoo foowandoo fii defandoo lu bëri jógendoo fii demandoo écurie Fallaye Baldé xam nga nekkoon fa nekkin bu rafet mu jóge fa bàyyi bàyyiwaat fa ñu nekk fa di continuer xam nga di continuer nekk ak moom foofu noonu quoi xam nga musul ñaaw nag te du mus a ñaaw ñu nekk ak moom bu wootee ñu dañ koy wuy si ko moom combat 13 lan nga ko ñu mën a wax. non ndam rek lañ koy ñaanal ndam bu yaatu sax bu yaatu moom ndax ñu xam nañ ki mu doon ndax ñu ak moom mbapat la ba ba muy bëri arène ñuy ànd di defandoo lépp xam nañ ko lu mu capable ak lu mu capable di ko ñaanal ndam di ko ne journée boobu noonu na tey rek dal bu teye dal rek yàlla dina ko may ndam incha allah. Zé yaa ngi dégg nee na nga teyee dal waaw Mafia bëgg naa la ci lan nga nekk. delloo bëgg bu baax a baax. woy Zé wax dëgg yàlla sunu xarit la sunu lonko la ñu foondoo depuis xale ba léegi ñu ak moom yàgg na quoi depuis kër Falaay Balde la woon. boobu euh, lamb di dem lamb di wane ay jéego ba tey Zé ñëw di def nekk ci cadre lamb quoi mi ngi jëm ci mi boo xam ne nag. combat bu ñu intéressé la combat boobu suñu combat la diggante yëmbal Malika ak benn barak loolu suñu combat ñun ñoo ko moom waaw di si ci ñaanal ndam di si ci ñaanal ndam wax dëgg yàlla Zé moom borom baax la champion la borom yoon la tamit te en même temps combat bi li ñu koy conseillé mu bari na mais bu dalee rek yàlla dinañ def lu gën quoi yéen tamit ñu leen bëgg bu baax a baax noonu ay Zé dégg nga yëpp. salaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV ginnaaw ba ma leen nuyoo te leen jaajëfal bu baax am contentement ak mbégte jano génn chaque jour. ndogu ak nii lay def chaque jour man ak sama équipe moo maa ne la Mansour Fall daal dem fekk champion bu ne fa mu nekk daal di toog waxtaan ak moom xool na lay dundee koor gi ci biir quartier ci biir këram te nag beneen champion lañ dalal xale bi nga xam te ne moo toj arène national toj jag si terrain gaal gi ba ci nga xam te ne mooy Adrien Senghor kooku mooy kan xale bi Malika bi di général Malika Zé maa ngi leen nuyu te di la jaajëfal. Ndeye Mbacké maa ngi lay fay ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yonent bi gërëm suñuy ñaari waajur di nuyu waa Malika yëmbal benn baraak waa Boune waa Alla Ba ñaax waa Kër Massar waa montagne waa Mbëbës di nuyu ñëpp ah di ñaanal Sénégal gi yëpp jàmm di baalu ñëpp àq tey baal ñëpp àq di nuyu suma gars yi suma xarit yi ak sama am di jàmm yëpp ah waaw. Général gi ma ba ma la nuyoo li ñu laaj Général am nga jabar. man non mataguma am jabar de. ah. waaw. Ah. <laughs> bu doy ni baayam. waaw xale la xale la. Mhm. xale yi rek dégg ngeen nee na xale la bu yóbboo ngeen recruter daal di génn ndànk. waaw noonu la demee nag xale la instant bi liggéey lañ ma sant. no femme no film y a pas de maladie travail pur et dur loolu laa xam moom lañ ma sant. ci laay hmm. dox ci laay waaw ci laay saa yu ma xëy daal ci loolu laay. dox waaw. nooy dundee koor gi. koor gi waaw dund ko ak ni ko jullit di dundee rek xam nga. woor ci farata ak sunna xam nga bu ñu xëyee dañuy woor. nekk suñ bopp ngoon gi bu jotee ñu ñëw fii ci gars yi ci café gi xam nga ku nekk génnee li nga yor ñu teg ko ci table bi jënd suñuy café jënd suñuy mburu taxaw ci kaw tëli bi xam nga bu heure ndogu jotee ñu partagé ko gars yi joxe ndogu ba pare soo ko dem suñu kër soo ko mën a ndogu quoi mm-hmm. ngoon gee ñu mën a dem nekk suñuy activité waaw mm-hmm. Mm-hmm. ndogu bi da koy def chaque jour wala da ngay xool benn bis ci koor gi la nga daal di xam ne mooy ndogu waaw ndogu yi moom yaakaar naa chaque jour dañ koy def mais nag bis bi dafa doon bis boo xamante ne donte chaque jour dañ koy def ndax ñi nga xamante ne ndogu da leen di fekk ci kaw tëli bi ak yenn tuut tànk yi mais tamit dañuy jàpp ci biir chaque jour yooyu koor gi dañ ciy jàpp benn jour def ndogu woo suñu xarit yëpp woo suñu am di jàmm yi woo suñu dëkkandoo yi partagé kook ñoom ndax nit amoo lu gën a forcé dëkkandoo te doomu aadama nee nañ mboq bi njëkk mooy dëkkandoo. Mhm. moo tax chaque année dañuy par programme def lii dañ ko daan def sax yemale ko suñu gaale wala ñu ñëw defar ñoo ko ba pare demaat suñu gaale mais dañ ne ren lépp ci télé bi lañ koy yemale quoi. Mhm. partagé ko gaa yëpp. moo mhm. ngi noonu dëkkandoo mooy mbokk ba tax na loo mënti xewle loo mënti am muy neex muy naqari soo yuuxoo balaa ngay gis kenn dëkkandoo ngay njëkk a gis si noonu bañ ne dëkkandoo ci biir ak ci biti ci biir làmb ji ma relation nga am ak yeneen mbër yi. waaw yeneen mbër yi jàmm ak salaama ah. ndax boo xoolee tey képp kuy suma am di jàmm ci làmb ji wax naa la ko ñam temps tamit ñëw nañ ñamul temps yi dañ leen di comprendre quoi mhm. mais jàpp naa ne am di jàmm bu njëkk ci mbokk mbër yi mooy suma mbokk mbër yi may dëkkal. yaakaar naa wax naa leen ko te teew nañ fi quoi vraiment. Mhm. gars yëpp ñoom Papa Dia ñoom armée xam nga ñoom guy gi quatre-vingt-quinze kooku moom. mën mhm. naa mujjee sax ci moom ndax su ma seex la. Mhm. loolu la yàlla dogal xam nga suma gars yi ñoom ñoom Saalum xam nga ñoom abandoo yi. gaay gaay gaay yëpp ñoom lacrymogène ñoom amasaw ñoom ango booy mbër yi nga xam ne yëpp daal samay gaay lañ ñoom bulldozer kulim daal da ngay jum mais gis naa gaa yëpp sama xol sedd na kontaan naa. Mhm. vraiment gis naa sama xarit yeeg sama am di jàmm yeeg yëpp gis naa leen mhm. vraiment. Mhm. balaa ñuy xuus rek phénomène bi am ci làmb ji instant bii général Malika Balla Gaye numéro la jël 3 avance digganteem ak ki nga xam mooy B B52 de Mbour di Bombardier. digganteem ak Boy Niang 2 borom curuxu curuxu doomu Pikine bi. ak digganteem ak ki nga xamante ne nii mooy Gris Bordeaux tout récemment ñetti affiche yooyu ban moo la ci gën a neex. ah ñetti affiche yooyu noonu ndax jàpp naa ne Gris Bordeaux waat la Bombardier bërewaat la. combat jànq bi daal moo daal waaw yooyu yëpp bërewaat la ndax ku ci nekk laale na ak moom. mais moog Boy ñaa moo doon combat boo xamante ne laaleeguñ te ku ne xam na ni Balla Gaye na empreinte am ba ñëpp nangul ko Boy Niang tamit marqué empreinte am ba ñëpp nangul ko. Mhm. du ma ne sax xale ak mag ndax dama naan ñoom ñëpp même génération nit koo magewul dix ans. Mhm. ay génération genn mhm. te ke amul ñoom ñoo ñëpp ku ci magee sa morom dix ans. kon lamb yoo xamante ne lamb yu la mais man daal maa ngi xaar Balla Gaye ak ndax làmb jooju moom xam naa dina neex quoi vraiment. mu nekk combat bu nar a neex. ñaari mbër yu xiifante boo doon décortiquer donc combat di ko décortiquer kan ngay jox favori. làmb yooyu mënu ma cee jox kenn favori ndax dafa am ku ci nekk li la yàlla suñu borom nattoo mu doon sa foor. Mm. booy ñaa ku ne xam na ni dafa mën xaar. Mm. saa dawee dal ci kawam mën na def lu ne ci loolu noonu. Mm. Balla Gaye ku ne xam na ne nag dafa mën daw dal ci kaw mbër. daw ci kaw mbër da ciy def lu ne. kon làmb jooju mënu ma cee jox kenn favori. ndax ñu ngi naan xale mag mais man jàpp naa ni ay affaire de adversaire la que le meilleur daal vraiment. maanaam attaquant la ak défenseur. waaw mooy noonu kon ku nekk dañu lay jox cinquante cinquante. Mhm. général Malika ci noonu ñu gis ci lutte simple. nga fës si loolu macha allah ren ji mhm. làmb demagul fenn mais wane nga sa bopp bu baax a baax ban satisfaction nga am ci làmb lutte simple. waaw sant yàlla ah. ndax yaakaar naa ni li may faral di wax rek bu yàlla dogalee làmb yàlla suñu borom nattooñu ko. ñuy entraîné chaque jour matin soir kon jàpp naa ne benn fan bu ñu toog rek bëréew ñu ko pertement la mhm. mais nag li simple dama ciy sant yàlla ndax man nee naa naa bokk ci mbër ci mujjee dugg mhm. képp kuñ may compareel ci làmb rek ci laa la fekk mais mhm. sant naa ci yàlla dem naa ba su làmb jotee bu ma ñëwul sax dañ may laajte am ñoo xam ne bu ñu ma gisul làmb dañ may woo ma sama ticket bi ma dagg da ma koy fay ndax dañoo ñëw ba ci làmb ji gisuñu la kon loolu ma a def du lii nii quoi ndax xale laa maa ngi entraîné chaque jour maa ngi def li ma war te sama avenir mu ngi suma kanam lépp lu ma def rek jàpp naa ne war naa def lu ko raw quoi bàyyeegu ma xel dara lu simple nekk milieu bu metti ndax booy ñëw mën naa ne mbër yu bëri ngay waajal doo waajal benn mbër rek mës est-ce que mës nga ñëw ba jour combat sant ne yow mii kat mystiquement jàpp nañ la waaw loolu lu mënta ñàkk la vraiment bu dëgg dee dëgg rek dañ koy dund ci làmb ndax boo xasee ba commencé doon favori ci làmb rek jàppal ni coono tàmbali na quoi mooy loolu noonu ndax saa boo ñëwee ci làmb da ngay ñëw gars yi ne eh Zia ngi fi dootuñ bàyyi xel beneen mbër ñëpp yow la ñuy sóoraale comprendre nga waaw te bu fekkee ñëpp nag yow la ñuy sóoraale day metti des fois nga ñëw xam ni yow mii nii du yow mais doo ko wane. Mm-hmm. ñi ngay àndal duñ ko xam ci yow amateurs yi da nga duñ ko xam ci yow ndax boo tàmmee wane jàmbaar. Mm-hmm. mën nga bëre ba ba bàyyi kenn du xam ndax lii arrivé na loolu yow mi nga xam ne yow yaa nekk si biir géew bi yow rek yaa koy xam. Mm-hmm. te sa yi ngay jàkkoonteel sax mën nañ koo bañ a xam. mooy loolu noonu. buñ ne A rek B day am. yow la koy def est ce que yow nga dem lutte simple rek préparer benn mbër xam ne mbër bi bu ñu demee dañ fa nga teel a jug ci moom. non du faral di def loolu nag vraiment quoi man su may dem di làmb daal su ma demee ñu ne làmb ji tey 64 la 63 yëpp jàpp naa ni sumay adversaire lañ bu ma demee ñu ne 40 mbër la jàpp naa 39 yëpp sumay adversaire lañ quoi man noonu laay doxee. Mm-hmm. mooy loolu noonu. ci noonu nag yóbbante naa waxuma ko daa am ko ma yóbbee man day Mbacke soo demee ci général Malek laaj ko la moo tax bu ñëwee ci stade bi loolu da ngay napp mbëri wala sa sa nature la yóbbante na nag. yeggee naa ko benn boy moo may jëm a saaga man français laa sax man quoi mais boy Malika mooy bëgg chaque jour may ñàngal quoi. <laughs> damay bëgg a dindi loolu mais dem naa ba léegi dafa cay yàqu. boy Malika daf may ñàngal loo quoi mais nag loolu dara quoi pour man l'affaire de lamb la ndax lamb boo xasee ba dugg rek war nga mën a. am sañ-sañ boo xamante ne wala nga am arñe boo xamante ne nit bu jugee woon ci àll ba sax du ñeme daw dugg sa garde quoi vraiment loolu ci mbër lay nekk. Mm-hmm. muy noonu nag démb la ma woo 23h ne ma laajal ma lii général Malick laajal naa la ko loolu leer na général sa lamb ji passé mu nekk lu bett ñëpp. Mm-hmm. lu bett ñëpp sa diggante ak Tony. waaw sa loolu bett na la yow mi waaw na maa bet ndax foogu ma ko woon. Mm-hmm. ndax saabu bu may génn sama kër moom ba tax samay bagage di dem. ndam laay jàpp ni moom laay dem jëli ci Mhm. loolu moom mooy li ma gëm mais nag boo demee amaat safaan danga koy sante yàlla rek di xam ni doomu aadama amul buy may sa bopp da ngay sabablu rek tey jii nii am ak ñàkk dafa nekk ci loxoy suñu borom. Mhm. mais sabablu moom fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi te gor su ne wala doomu adama bu ne sañ nga saa boo rek di sabablu boo amee sante ko yàlla di ñaan yàlla mu yokk boo ñàkk it nga sante ko yàlla xam ni tey su ñàkk la mhm. man loolu laa gëm. général loolu dafa nekk lu comme ni ko waxee rek lu bett ñëpp. ndax dañoo gis nga taxaw war a bëre ak Tony Junior ñëpp ne ah kii de général da koy faxas jàll. ñu hmm. gis ngeen dem bëre ba ci biir affaire bi demee tour tourné dem beneen sens. waaw da ngaa excès de confiance la woon wala nga xeebum Tony Junior wala. non xeebu ma ko sax ndax mbër la déggoo li ma la wax man su ma xasee ba dugg ci làmb ñu doon 64 63 yëpp jàpp naa ne samay adversaire lañ xeebu ma ko làmb la ñëw nañ di bëre mu demee noonu mu am ci ndam dama koy sant yàlla rek di ko ñaanal mu jik ko loolu du dara. mos ngeen bëre avant jour boobu. jour boobu laa ñu soo ko dajee la ce noonu nag Mansour Fall ka ca kontaan bëgg ci muy fils de la moom mi jàpp ne comme Tony Junior moo la daan moom bu ñëwee dalay faxas ak jàll doo ko doy gàllaxandiku. kan la noonu. fils de Balla sa adversaire. ñi may bàyyi xel ci làmb moom bokku ci fils de Balla kese bu desoon ci làmb ma bàyyi entraînement. barki yenent yàlla Mouhamed taxul may entraîné taxul may yeewu sinkër yi ma dem bu fekkoon dañ ne ma saison bi ren yow fils de Balla Gaye ngay bëreel damay nelaw ba yeewu di lekk ba suur di dox ndànk di dem di def li ma war a def te bu làmb ja jotaa lu ko war a def amul lu ma koy teree def lu a loolu li ma gëm la ah jàpp na yow yaa mën fils de Balla daal li ma gëm la déggoo li ma la yi dafa am ñetti mbër ñetti façon mbër moo am te bokkul dafa mbër yoo xam ne dañoo ñëw ci làmb ji pour animer am ñoo xam ne dañoo dugg ci làmb ji ndax ay mbër hmm. ñoom dañoo gis ma riirandoo ay mbër doon mbër ñu dugg ci làmb ji ndax ay mbër am ñoo xam ne nag mbër daa nekk ci ñoom du nag damaa bëgg nga xam ne mbër daa nekk ci sa bala ñett yooyu ban la ci waaw moom xam na bi mu ci doon am ñoo xamante ne làmb ma leen di booleeg entraînement bi leen di booleeg entraînement man waxuma ñooñu man man man mbër laa li tax ma ne la mbër laa dama koo xam dafa nekk ci man sama deret bii dereetu làmb moo ciy daw mm. ki ko mën nag ak ki koy jéem bokkul ñun li ñuy def ku dul góor yàlla ku dul jàmbaar ku dul xarekat doo ko def. Mm-hmm. te loolu nag après lañ koy comprendre te làmb jooju ku ci xaar lu metti benn na nga koo waajal fukk te xam ne li ngay bàyyi xel lu ko raw ngay gis. Mm-hmm. waaw. général Malika balaa ñu ñëw ci le 13 juin sax dañuy def ndànk rek xoolal li nga xam ne mooy drapeau chef de l'état. waaw du 28 au 30 naka nga koy waajalee pare nga pour dem ci wala. ah. drapeau chef de l'état pare nga pour dem ci wala. non man yow du yaa ngi may laaj sama préparation komba kon xam nga ne instant bi maa ngi ci préparation komba hmm. waaw am na ci loo xam ne nag sama staff la ñoom ñoo koy xalaat ñoom ñoo koy wax luñ ci décider rek man mooy loolu noonu. waaw su la bàyyiwee da nga def. waaw ndax déggu li ma la wax man mbër laa dereetu làmb mooy daw suma yaram. Hmm. ba tëddoon fii ba guddi tey ñu ne ma ñu ne ma Fatick am na làmb. Hmm. mu wóor ma ni bu ma taalee sama oto balaa maa yegg làmb ji du tas samay taal sama oto dem bokkul ak ñoo xam ne boo leen newoon këpp këpp ci nelaw neneen làmb ñu ne la xaaral pareegu ma may ma tuuti ma waajal man bokkuma ci ñooñu mbër laa deretu làmb mooy daw suma yaram waaw. toujours prêt la borom bien fait vite fait. nax ndax ngay préparer sa combat ñaar séance d'entraînement ngay def. actuellement nii deux séances la ñuy def. Mhm. waaw ndax moment bii nii comme weeru koor la di nekk day xaw a mhm. metti da ngay ndog ba pare dem dunya wala nga dem géej boo paree dem musculation. Mhm. noonu lañ koy jàppoo. le ñëw léegi yàggatul. lan nga doon indi sa adversaire jour J. lu metti lu bari doole lu mu xaar lu metti rek na jàpp ni dina gis lu ko raw. parew ma pour may ko dara ñaanuma ko dara. te li ma bëgg ci moom damay ñëw fekk fi mu nekk ma dem jëli ko. moom na waaj loolu. Fils de Balla du yab ci làmb. dañ maa yónni yaa xam te ma taxawaalu waruma. jàpp na ne booy nga de bu ñuy dara yar li ma la wax man xale bu ndaw laa no femme no film y a pas de maladie j'ai travaillé pire et dur te dañ maa yónni yaa xam te ma taxawaalu waruma. ku ñu yónni yàqamti ko nan ngay def. gaawantu daw dem jëli liñ la yónni. indi ko. Mhm. kon moom dafa bokk ci suma yoon. Mhm. te moom du moomay téye. Mhm. voilà. Zé lii say supporter ñoo ko wax seen gémmiñ. waaw ñu man day Mbacke neel ma général Malika soo matee combat yàqamtiwuñu dara na def ndànk ndànk bu mu ni fukk de jeunesse. lu taxaw ci kanamam bu defee ndànk rek moo ko moo ko moo ko mën. yaa ngi koy dégg loolu di tontu. waaw gars ñoom mooy loolu di leen wax ñu ñaanal ma rek yàlla lafal ma cet ndax tey jii boo dee xale di liggéey chaque jour matin soir da ngay jàpp ni loo dajal rek da nga war a dem jëli nga moom ñëw faxas salo nag mënut a ñàkk ci yoon. Mhm. mais loolu may def ci man la nekk nañ ma ñaanal rek yàlla lafal ma cet mais sama morom bu ma jàkkaar loolu ñu war a bëre luy neex ci làmb ji naa koy def. Mhm. du ma xaar sama benn morom mu may yab. Mhm. dafa am loo xam ne yabel la ci làmb te bëgguma ñu may boole ci ñooñu noonu bëgguma ko ma yab ci làmb bëgg naa ëllëg ci biir wala samay sët wala samay mbokk bu ñu nee général ah la waaw man Fall ndogu ak la woon général Malika balaa ngay tàggatoo lan ngay wax fans yi. fanse yi di leen ñaanal jàmm di ñaanal sama bopp jàmm di wax ñoom laa am aw ma ñu dul ñoom tey sama am yi nekk si diaspora bi gis naa seen taxawaay ak sama gaay yi si war ci simple bi dañuy taj lu ne. di werante fu ne mais nee naa leen tey ji ñun làmb lañ am. làmb lañ bëgg làmb la ñuy dund. tey am ak ñàkk mu ngi ci loxoy suñu borom mais lenn laa leen di bañ saa bu ngeen ko gisee ci man wax leen ak man bis bu ngeen ñëwee làmb gis ni général ragal la wax leen ak man bis bu ngeen ñëwee ci làmb gis ni général nekkul ci état wax leen ak man voilà di leen ñaanal jàmm di wax sama làmb ji ma dem la treize na ko ñëpp waajal di wax kenn du ko rëccu bul bis baa bu ko supporters yi waajalee amateurs yi waajal ko ñëpp képp ku ñëw ci làmb ja doo ko ndax xam naa ni lépp luy neex ci làmb ja incha allah ci kàttana suñu borom man maa koy def mafia dóoru bi ma seen fay ñoom it di leen woo ndax ñu ngi waaj boo xoolee li ko daggee Kër Massar Malika yëmbal benn baraak caaray garage ñoom buuba garage laat ñoom Ibra faal gaa yëpp ñu ngi waaj comprendre nga di waajal làmb ji bu baax a baax baax a baax li nga fekk nag ñoom fi mu toll nii ñoom taq nañ ba dëgër di waaj ndax aw ma seen fay fi mu toll nii waa Casamance ñu ngi waaj làmb ji bu baax a baax a baax a a baax waa Malika nag waxaale ma ko waa Kër Massar moom instant yi taq nañ ba dëgër génne nañ seen affiche commencé koo taq mooy loolu noonu loolu nag ñu ngi ci loxo nomba ak ñoom Sepp ak ñoom Pa Matar. ñoom ñu ngi ci xëy guddeeg bëccëg suba ngoon waa agent d'hygiène. xam nga dafa dogal man may mbëru homme de tenue. homme de tenue yàlla man la dogal ñu may béggee di ma tiitaroo aw ma seen fay mais dafa am nag ñoo xam ne dañ cee raw waa agent d'hygiène service d'hygiène ñooñu ñoom ñoo ma féetewoo ma féetewoo leen te saa su ne ñu ngi bàyyi xel sama làmb di ko waajal ak doole actuellement nii ñoom nee nañ ma laaj ñu ne dara pare nañ ci côté bépp làmb ji lu mu laaj ñoom ñu def ko kon man naa làmb ji tey la waroon doon wala ñu ne korite nañ la lendemain boobaa la ñuy xam di ñaan nag yàlla lafal ñu cat bu baax a baax baax di nuyu suma supporter yëpp di wax ngeen waajal seen mbër pare na aw lu may bàyyi xel ci làmb ji li ma moom li ma bëgg dama koy jëm jël si te aw lu ma ciy sóoraale yàlla xam na loolu li ma doon ñaan yàlla sax balaa làmb ji di yegg suñu dooleel ma ci yeneen quatre avance xam nga gars ay trois lañ wax yeneen quatre avance laa bëggaat balaa sama làmb ji di jeex pour ñu xam ne par damaa pare dafa am ma bët quoi du jëmm jooju moo may téye waaw loolu laa bëgg gars yi xam ko di waat ñëpp di waat ëpp ñëpp ak di ñaanalaat ñëpp jàmm xam nga di wax lii nii rek ci la jàmm xaj mhm. lu toll ni weeru koor nga ñëw fekkee ñun nii xam nga mhm. lii nii amaana jàmm la xëy na bu fi jàmm amul woon lii nii doo ko fekkee quoi mhm. di santaat yàlla bu wér a wér a wér di wax yàlla nañ suñu borom lafal cat di woor nag sama gars yi may jàppale képp kuy su ma sobee di ma taxaw di ma jàppale maa ngi lay woo zoo technique borom agent Kër Massar maa lay woo nga ñëw jàpp ci làmb ji bu baax a baax a baax a baax a baax a baax Zoungale Ahmed Fall maa ngi lay woo naan la làmb ji sa làmb la Modou Kane borom Italie maa ngi lay woo naan la ji sa làmb ngeen ñëw jàpp ci képp kuy autorité Malika maa ngi lay woo Laye Diop maa lay woo nga ñëw jàpp ci monsieur le maire moom yow moom gisaguñ la ñu ngi lay woo nag yow it maire maire Malika ñëpp a ñëpp a ngi wax ci yow ci jeunes yi pour nga leen di taxaw li message la bu may jàllale ndax monsieur le maire ñun ay citoyen lañ ay doomu Malika lañ dëkk Malika di sonn ndax Malika mais ñun gisuñu suñu bopp ci yow benn yoon monsieur le maire amul dara loo ñu satisfaire yow monsieur le maire li dañuy wax pour nga dégg ko ndax dañuy am suñu combat di yóbbu ay milliers personnes gars yi topp suñu ginnaaw duñu supporter est-ce que ay dégg mais dañuy préparer combat bay bëgg a dee sama combat bi passe damay préparer ba mu des une semaine xaw ma nangam dañ naan ma nañ mm-hmm. lay ñu lay dara mm-hmm. loolu dafa ñaaw ci monsieur le bu fekkee yow Malika ñor na la deretu Malika daw ci yow ñun ñuy ay doomu Malika ñu ngi lay woo nga ñëw jàppale ñu ndax loolu sa wareef la tey jii nii ñi dëkk feneen di ñëw di ñu jàppale amaana yow la warloo mais monsieur le daaw Daouda Ndiaye maire yëmbal noor maa ngi koy sant bu baax moom it gis nañ nim ñuy taxawoo mu ngi jàpp si ñun bu baax a baax baax a baax Yuri Sall ñu ngi lay sant bu baax a baax gis nañ sa taxawaay ndax yaa ngi jàpp ci bagage yi bu baax a baax a baax maire Kër masaar moom it ñu ngi koy tàllal loxo ndax gis nañ taxawaayam ci jeunes yi ñu ngi koy woo mu ñëw jàpp ci bu baax a baax baax a baax a baax di woo gaa yëpp yi nga xamante ne ñu ngi suñu ginnaaw di ñu jàppale Pa Matar moom pare na ndax vraiment tey jii nii bu ngeen gisee lii bëri na loo xamante ne tey moom moo ko def kon maa ngi koy sant bu baax a baax sama gaa yi ñoom jaal Tafa Soumaré papa daaw Kane ay non ñooñu gis ngeen li ngeen gis yi man mënuma dara mm. man mbër laa ba saison bi tëjee yàgg na xaalis bi ma yoon yëpp jeex na mm. tey bu ngeen gisee fi am yëpp gars yi ñoo débloqué seen moyen def ko kon ñooñu aw ma seen fay te faaw ma wax ko mm. ñoom Tafa Soumaré Seri Sona ay ñoom papa gars yi ñoom Vito sama copain Vito borom station Pikine chaque jour day fayet ndax général moom ragal ragalul fi mu féete moom it yàlla na jàmmam yàgg sama booy jóge Casamance nekk ak man fi aw ma seen fay ñoom Lakiri Mosène Ango Ama Saw boo yëpp maa ngi leen di bégee Pamatar mention spéciale nombo mention spéciale sep mafia boobu mention spéciale ndax gis naa taxawaay bi ak déplacement bi guy 95 nag moom du ma ko du ma ko du ma ko du ma ko gërëm dama koy ñaanal di mm. tax ma koy ñaanal mooy suma ma xarit la boo xamante ne mbër la may may mbër la moom man may mbër mm. mais moom day jël mbërëm teg ko fële di défendre di ma défendre man mel ni man kese man may mbër te loolu dafa rëy mais nag loolu lu munta ñàkk la sama diggante moom bu ñu àndaan maak moom doon xale yaayam dañ daan wax ay seex gi xanaa ay seex ngeen ndax ni ñu meloon man ak moom quoi ba ñu xale yaayam yàlla na ko suñ borom xaare ajana mais meeram bu demaan liggéey ñëw bu bu waan ba ñëw lim indi balaa mu koy jox guy gi man la koy njëkk a jox ñu koy partage kon guy gi yàlla na jàmmam yàgg di ko ñaanal jàmm di wax fi sa bala na nga waaj xaw ma ndax yaa ngi waaj wala waajoo mais yàlla xam na ni loo waaj doyul nga xam ni làmb ji boo ko bëggee di nga xeex boo ko bëggul di nga xeex lu leer laa lay wax nga def ko sa bopp lenn nag moom ma ci jaaxal làmb ji dégg naa Lac de Guiers nga ci àndal mais da ngaa bàyyi sa loxo bu fekkoon ñoom baala gay sax ngay àndal ñu ne waaw mais lag de Guiers nga ci àndal foofu nga bàyyee sa loxo quoi. yaa koy àndal voilà man waa Malika ñoom armée góor yaa lay ñoom Ameth Diop te tëf tëf mafia boobu laay àndal ñoom Pape Matar ragaluma dara déggoo ma mais moom ay ñoom Lac de Guiers day àndal dama ko yërëm quoi bu àndoon ñoom Balla gay sax mu tane mu dem ànd ak ñoom Lac de Guiers na fexe ba bu làmb jaa na dëggal boppam voilà maa ngi ko. réew ma de. fii sa baal dafa bëri wax nekk di ratatat yi mais yaa wax baaxul ba bis ba. mu ngi noonu nag Mansour Gérard Malika la woon ak ndog ak maa ngi koy jaajëfal bu baax di kontaan ci moom di jaajëfal mafia bi sama ginnaaw bëgg naa ne ñoom ñëpp ah cat ba cat kontaan naa ci ñoom. mu ngi noonu nag du mën a ñàkk trio bi la Mansour Fall baak Mbacke Diop moom maane damay dem ma ñàkk rek fekk fa Ami Ndiaye chéri Samba Diop. yaay maman di ko bëggee bu baax na ko happy birthday you di ko ñaanal jàmm ju bari gudd fan ni mu bëgg ci xolam moo xam yàlla na ko yàlla defal di ko ñaanal nag bu fekkee njëriñu maman ah ak doom njaboot yu bari ci nar a topp ah chéri chéri Samba Fall kontaan naa ci moom loolu ah Ami Ndiaye. ku la gën a ngandee moo la gën a yambar loola booy wax ku la gën a ngande moo la gën a yambar. Seydou kañ nga bàyyi ma tëj sama leer laa lay wax. Ami Ndiaye Seydou Samba Diop ku la gën a ngande. moo la gën a yambar ku gën a ngande. moo la gën a yambar loolu dafa leer. ñaar rek ci àll. barki yonent yàlla Muhammad buñ tëjoon tegoon pot paquetu tàngal fils de Balla ñu ub ñu ci biir néeg saabu ñu ubbee fekk ma ci kawam. ah <laughs> dégg nga ne. fils de bu ñu tegoon potu tàngal. Hmm. wala ñu tëj ñu ci néeg saa ñu ubbee ñu fekk ma ci kawam. <laughs> Leewtoo TV yéen a ko dégg de baax na foofu di wax rek maa ngi koy dégg muy wax di ratatati rek man li may def munoo ko doo ko def. Fils de baala doo yeewu fajar Fils de baala yow sa état pompiteer boobu nga yar sa dëkk lu rëy loolu di bëri wax man dañ maa yónni yaa xam te ma bokkuma ak yow. del del nekk foofu di wax nag man damay dugg fu ne di compétir di rey sama bopp. Fils de Balla daa mën a bëre ñaari combat dëggër dëgër. baax na yàlla baax na. waaw mu ngi noonu nag dama koy jaajëfal bu baax moom général Malika di jaajëfal mafia bi nee na damay dugg ba ñàgg rek fekk fa Amine Ndiaye daal di sama jumelle la ñaanal jàmm ju bare bari li nga bëgg sa xol yaa ko yàlla na la ko yàlla defal yàlla bàyyi la ak sa sëy bi ci kanam ak kanam nga màgget fa li fa bëgg lépp nga am fa ci noonu nag du mën a ñàkk trio bi la Ndeye Mbacke Diop Momo Mané Mansour Fall am contentement di jën ak yéen chaque jour dama leen jox dig daje ëllëg ak beneen champion incha allah ci Leewtoo TV jaajëf